engagé tey nag engagé laa leen indil ñu bëri dañoo yaakaar ne engage li mu mën nii lu bees tàqal ci moom déedéet pourtant dafa am jaar-jaar bu rafet ci théâtre waaye am na tamit jaar-jaar bu métti bu ngeen taaxaloo tuuti ma wax leen ban façon jaar-jaar la am engagé nag turam dëgg-dëgg mu ngi tudd Cheikh Tidiane Aw moom nag depuis mu nekk xale ci bëgg lii jëm ci wàllum théâtre en 2011 ba muy def CM2 la bëgg dugg ci théâtre nag waaye boobu ñëmutoon lii nga xam ne nag moom mooy ay waajuram dafa nekkoon nit ki nga xam ne nii da doon boole étude ak lii ne nag mooy théâtre jamono jooju mu nekk xale li indi turu engagé yomb la maanaam dañ ko joxoon benn rôle boo xam ne nii benn rôle bu compliqué woon maanaam ku doon jàngale fecc tëgg ay programme maanaam ay mariage léegi nag scénariste bi ko wutal benn tur ci la engagé waxee nag damay jël tur bii nga xam mooy turu engagé ba tax tur boobu nag daal di law mu nekk benn xale nag commencé jouer lii nga xam ne nag moom mooy ci fosco yi loolu nag jamonoy 2012 2013 la woon jamono jooju mi ngi nekkoon ci benn boîte bi ñuy wax illusion du savoir après nag ci la quitté nga xam ne fii nga xam ne nag mooy bëgg sa réew boobu nag Tan Bombe moo ko jiitu woon Tan Bombe nag mi ngi ko jàppale baax a baax ci carrière am maanaam moom mii di engagé dafa tarbiw lii nga xam ne nag moom mooy théâtre xanaa que li ñuy wax moom moo ko révélé waaye dafa yàgg a tarbiw jamono 2017 ba lii nga xam ne nag moom mooy 2018 ànd ak ñoom mujj gi nag ci la commencé nag di génn di gérer yeneen théâtre yu ndaw a ndaw moom engagé gérer na fi ay sketch yu bëree bëree bëri bëri jamono jooju may wax ak yéen waaye jamono jooju ñu bëri xamuñu ko woon xanaa ñenn ci banlieue bi ak ñenn ñi nga xam ne ñoo ko daan fréquenté jamono di dox nag réseaux sociaux bi di TikTok daal di ñëw Sénégal ñu bëri nag daal di ko découvrir kii di engagé yéen a ngi fàttali coupe du monde bii jàll borom dëkkandoo yi dëkkandoo yi moom engagé ci la commencé fële nag vidéo viral loon trop ñëpp daan ko bàyyi xel engagé ci la commencé nag engagé nag mën a tooñ trop trop artiste bu mu jàpp bu la tooñee nit ñi dañuy retaan waaye lépp da koy teg ci kaw yaru ak teey ak lii nga xam ne nag mooy comédie professionnelle ndax engagé naa la dafa yàgg théâtre moo tax li muy def dafa professionnel bu la jàppalee Mia Guissé Kumba Gawlo ak kii nga xam ne aussi moom mooy borom ala waaye bëri na yu bëree bëri bëri jamono ji tey ji engagé rek lañu topp lan moo tax ñu ngi koy defee moo neex te dafa tellement naturel ay ci weeru koor bi ay directam nag moom lay ñëpp daal di suivre maanaam direct yi muy def li nga xam ne nag moom mooy ci TikTok bi mu nekk nag li ko gën a marqué mooy li nga xam mooy génn àdduna yaayam parce que Angad dafa jege woon yaayam trop te da ko doon jaayal ba li nga xam ne aussi moom mooy ci école yi ay crème yàlla na ko yàlla yërëm tey nag sama gars yi Angad daal di indiloon borom dëkkandoo yi dëkkandoo borom Fayland xaritu mi yaa gisee ak képp kuy artiste ak képp ki nga xam ne théâtre kan nga sama gars yi Angad la indiloon ba beneen yoon incha allah mooy daax ay coo